Bienvenue sur Salam Vision. Ousmane Sonko tey li nga xamante ne moom lañ ko teg ci ay tuuma yépp dafa nekk loo xam ne kenn xamul nag man moom li ma jàpp mooy Adji Sarr kenn violé wu ko. mais lu toll nii ci loo xam ne rek dañu ni dañoo violé benn xale bu jigéen ampleur bii mu am yëpp mu am ko xale bu jigéen bi ñu protégé ko wut fuñ ko teg bépp matuwaay boo xamante ni soxla na ko ñu jox ko ko di ko garder ba ay mbokki boppam mënatuñ cee jot loolu tamit boo ko jàngataatee day mel ni am na kuy appuyer xale bu jigéen bi. ki koy appuyer nag nit ñi ñu ngi juut. du baaraamu tuuma Macky Sall te képp ku jàngataat affaire bi tam Macky Sall ngay joxoñ baaraamu tuuma da ngay jàpp ni moom moo protégé Adji Sarr parce que affaire bi ay pièges yu baree baree bari ñu ngi wax ni noonu la demee ba ci ki nga xamante ni moo yoroon suite bote bi di Ndeye Khady dafay génn bu génnee dafay wax ne man wax nañ ma ni nañ ma jox tant de million ma changé sama version loolu moom yaakaar naa ne nga koy dégg ci TikTok bi mu mel ni kon boo ko jàngatee day mel ni Macky Sall ci boppam ak i ñoñam ñoo bëgg a suuxal Ousmane Sonko ba du dem élection 2024. waaw soo Khady yow su ma la déggee yow waxu waxu ko far ngay wax maanaam sa question bi da nga ko orienté. ci ci ci ku far. non ni mu demee waaw non non non non non am na am na am na question boo ko noo ko laajee rek ñun tamit on connaît geste manière et façon la façon dont tu poses les questions automatiquement dañuy sentir ni yow nii da nga da nga far te te te te te gis naa ni te gis naa ni <laughs> loolu loolu loolu warul waaye bu fekkente ni dañuy xool ci càppandaw gi. procédure bi nu demee yooyu yëpp da ngay gis ni même Ousmane Sonko dafa changé ay version am ay discours am parce que au préalable waxoon na ni musu fa dem loolu la njëkkoon wax musul dem mu dem ba ci biir mu ne mus naa fa dem waaye dama dama feebar. nga gis ni aussi tamit mu ngi doon yàqamti ne nañu dem procès. xam nga aussi donte bu fekkente ne dafa am manigance wala manipulation bu ci am aussi tamit ci deux ci deux camps yëpp la man si laa ko gis man d'après sama analyse. parce que. ni nga ko waxee yaane ne Macky la man du ma wax loolu yow yaa ne Macky moo nekk ci biir man du ma wax loolu. waaw yow yow yow yaa wax loolu man man man man mënu ma wax loolu. lu tax mënu wax loolu mooy man dama naan loolu noonu mbir boobu noonu ña ñett kese ko xam yàlla suñu borom. aji Sarr ak Ousmane sunk waaw xam nga xam nga xam nga xam nga affaire audio. buñ ci duggee daf ñuy renvoyer war fee. parce que boo xoolee euh, soxna Xadi ñu ngi ci vingt et unième siècle te technologie dafa avancer ay audio mën nañ ko truquer comme ni ma la ko waxee woon ci video yee mën nañ truquer une image une vidéo mën nañ truquer audio ba yow nga wax ñu jàpp ni yow yaay wax te du yow donte sax Adji Sarr ci boppam moom confirmé na ni audio yi moom la mais nee na da dox piège parce que sëriñ boobu noonu ci boppam da ko bëggoon laaj xaalis mu dem ba ci biir xam ne ni kii nii su ko toppee mu jël ci moom xaalis moo tax mu teg ko dil piégé ko di ko di ko wax loo xamante ni loolu loolu loolu loolu amul. même bu fekkente ni moo wax ni sëriñ bi moo ko effectivement. Mm-hmm. xaj Adji Sarr moom moo ne. ba ko parce que doyen des juges euh, déglu na ko ci audition bi. Mm-hmm. nee na ko ndax audio yow la Adji Sarr confirmé ne audio yi moom la mais nee na moom moo doon piégé marabu sëriñ bi parce que sëriñ bi daa dem ba ci biir sëriñ bi di ko laaj xaalis bu bëri. Mm-hmm. naan ko boo li indee xaalis bu bëri mun nañ daw ak yooyu mu xam ni kii nii. il n'est pas fiable. moo tax moom mu teg ko dil di ko wax loo pour kee di gën di wax. kon donc euh, yaakaar naa ba tey gis nga audio mënul justifier viol. parce que boo xoolee euh, li nekk ci ci ci ci ci ci table bi table procureur viol la. du audio mais viol la. waaw maa ngi ñëw <laughs> xam nga xam nga xam nga mooy li ma wax sànq rek ñun ci fee lañu war di lañ lañ war di waxee. Mm. li euh, ci bëri gars yi dañuy dañuy wax rek di manigancé di wax te manipulation aussi tamit baaxul am na situation fu muy toll dañuy xool li nga xamante ni moom mooy apporter voilà ak loolu loolu mooy dëgg mais ñu bàyyi manipulation te nag wax dëgg yàlla euh, qu'on le veuille ou pas ñi nekk ci Ousmane Sonko dañuy bëgg manipulation des fois dañuy génn sax joxe ay fausse information def ay fake news te te loolu yëpp yëpp yëpp du du dëgg soxna.